salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di sàkku it ngeen ñaanal ni ko eh, di am mbégte rek seen émission mag bi Dakar Buzz social tey nag génn nañ ci région bi ñëw ba fii nga xam ne mooy Lëndëmaan Lëndëmaan nag da ngay ñëw ba Kébémer nga daal di jàdd sa gos daw ay quelques kilomètres ci àll bi lépp rek ngir ni ngeen ko tàmmee di gis nee naa leen fépp fu jàmm yàlla nekk rek. am jafe-jafe euh, man faa daal dinaa sol sama daal dem fa jéem koo génn exposé ko pour jaamu yàlla yi mën cee def te yàlla tax waaye dem mbégte rek ci ñaan yi ngeen may ñaanal di wax ne ñoo ko bokk lu ngeen ci am yàlla nañu ko bokk di leen jaale encore une fois tam ki nga xam ne mooy Roqaya Ja di malaat boo xam ne dajoon naa ci moom lu ne pour bëggoon mu jóg mais sunu borom ñoo dogalam ngeen def ceen alal gis naa ni ngeen ci sonnee yónnee bi ñaan yi mais sunu borom mooy wéral def ngeen lu ne pour mu jóg mais suñu borom moo ne woon foofu lay am mu leen koy jaal di leen masaw di ñaan yàlla na dee di nof laayam di gis nag di ngeen ci sonne di amaan mbégte ci yéen rek tey ñëwaat nag fii ci Kajoor seet si suñu boo xam ne tëraay bi xaw na yàgg te xaw na def ab diir comme ni ngeen ko tàmmee rek ma yaakaar leen ci nag kon damay bàyyi ñu waxtaan ak moom ci tawat ji na la ko dikkee ak kañ la mais maa ngi am mbégte ci ni ngeen may toppee di ma ñaanal te ma encouragé ba pare di def seen xaalis ci ku baax maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax maa ngi baax. xaadim Mbeng la ko xaadim. tur bi sax dafa neex yow yaay borom jumaa ji tawat ji depuis kañ la. kii la ko waan Kas Rajab. nan la dikkee. Oh, sama benn sama benn xarit moo moo woon ndar quoi ne ma dama damaa war a dem fii Kas Rajab bi dama yobu benn luyaas quoi nga ñëw jàppale ma léegi ma jógee ko Kébémer di dem ndar. bi ma ñëwee ba benn dëkk bi ne fii laa def accidenté quoi hmm. benn biis. Hmm. oto la mbëkk wala. non ñaari oto ñoo daje quoi biis ak benn uh, frigo frigo jën hmm. ñoo daje. loolu depuis 2015 la woon. 2016 la woon 2016 Kazu Rajab waaw. mais loolu bi loolu amee automatiquement da nga dem hôpital wala lan nga def. waaw dem naa hôpital Louga quoi xaw naa fa yàgg nag def naa fa presque lu ay nekk naa fa des traitements ay waaye ñoom. booba amuñu ay scanner ak yooyu rajo lañ ko defar rek ne sidit gi moo moo tëcc dana dikkaat loolu la ñu xool ñoom. sidit lan sidit ndigg wala sidit tànk. sidit ndigg la quoi ndigg moo tax tànk yi bañ waaw. mais boobu automatiquement euh, ñëwoon Dakar da nga dem def traitement fa rek toog. maa dem kees après ma ñu dem ma dem fa foofu gisuma fa résultat quoi fële une petite Louga gisuma fa dem dem dem dem Fann Fann dem naa fa la yoo xam yàgg waaye place la fa amul woon place. problème place la quoi. léegi ma ñëw fa ñëw ñëw kees hôpital régional kees léegi ma defee rendez-vous ñëw ñoo xool ko ne problème li si bi moo tëj moo kepp quoi si moo kepp moo tax tànk yi bañ. mais léegi waxuñu la comme da nga war a def opération wala pour lu mën a indiwaat sidit bi pour yëkkati ko parce que lool yaakaar naa ne bu opération. waaw loolu la ñu wax quoi ñoom nee nañ ko war opération quoi waaye boobu jamono yooyu boobu daa góom yi bëri ñoom ñoo ñoo jël à risque am naa opéré ko moo tax am naa waaw. mais programme wuñ la benn yoon pour ne la dañ lay jël rendez-vous pour opérer la. ñoom jël nañu ma rendez ba egg quoi ñoom ñoom dañoo mujj ba dañoo mujj fas docteur ba ñëw mu ñu faussé quoi waaw. yàlla def na wér na léegi kon ragal naa boo delloo hôpital ñu opéré la. waaw ah, am naa yaakaar ba fi ne góomi wér nañ def lépp wér na waaw waaw. mais boobaa léegi da nga continuer traitement wala da toog rek. boobaa léegi yabaloon nañ ma fi ay ma da ngay def ay ay massage boobu ba léegi yàgg na nag maa def naa massage ba lay waaye mooy lool ba léegi gisuma ci dara nag waaw. mais bilan opération bi waxuñu la ñaata la. bilan appareil waxuñu ma ñaata loolu la loolu la wax tur bi moom ñaata la wax dëgg yàlla waaw. Dakar Buzz li ma la ci wax rek mooy euh, damay sant yàlla rek ndax ndaw la di góorgóorlu toll ci buntu àddunaam dégg ngeen li mu expliqué ci accident bi di ma amee ma yaakaar lañ ci nag ginnaaw yàlla ak bi parce que lii ma gis xam naa ne du ma médecin mais njortu naa ne tey jii opération la mën a def. opération la mën a def pour sidit bi ñu mën koo sauver opération nag xaalis a koy def xaalis a koy def te xam ngeen li ci mbiru hôpital ma leen di taalal loxo rek comme di ngeen ma ci jàppale ngeen wallu ma ci sama frère bi di xaadim nga xam ne boo ko ne jàkk rek gis ci moom xam ne mi ngi dund ak métit parce que boo ko jegewul doo xam li muy dund te wax dëgg yàlla yaakaar naa leen ci nag ginnaaw yàlla ak yonent bi ngeen wallu ma ci parce que ragal naa bu demoon hôpital yu mag yi tey yi nekk dakaar buñ ko opéré yàlla mën na ci def tawfeex mu doxi soxlaam yaakaaruma ci kenn ku dul yéen ginnaaw yàlla yonent bi parce que looloo ñu jëlee Dakar ba fii pour xaar seen loxo xaar seen dimbal képp ku ni seetaan itam te mën koo jël en charge yóbbu ko ci hôpital itam fa lillahi alhamdu parce que wér rek moo ko intéressé bu loolu mën tamit ku yor sa xéewal ni ngeen koy defee rek numéro bi dina défilé ci baaru écran bi ngeen mën koo jàppale tam faj la alhamdu mais daal lu ñu intéressé mooy mu jóg mu jóg ne ci ay yitteem ci liggéey li ko lii dalee kon ginnaaw ci lii liggéey li ko lii dalee suuf bu sutantee dañ koo jàll yéen rek yéen ci mën a jàpp gannaaw yàlla pour mu doxe ay soxlaam xaadim lan ngay wax ñi lay seetaan te bëgg laa jàppale. man daal maa ñaan daal ñëpp rek képp ku ma defal yàlla rek nga ñëw quoi maa ngi jàppale bu baax ndax travail bi xam naa yàggu quoi 2016 woon ba léegi naa mën na 5 ans daanaka képp ku ci mën a defal yàlla rek maa ngi la ci yow ñëpp rek waaw. am nga soxna. non amaguma sax wax dëgg yàlla waaw. yaay taaw wala. non du ma taaw sax sax kii sama grand frère la quoi waaw sama yaay sonn na ci trop wax dëgg yàlla dem na ci lu mën lépp wax dëgg ñëpp jàmbaar nañ waaye yàbba léegi ma loolu ba léegi nga tëdd ak lii noo ko dundee ak wàllu métti ak fii ni mu mel. ah métti na rek wax dëgg yàlla waaye xam naa dañuy muñ rek xam na mbir yàlla la quoi ndax am na ñu bëri ñoo am si ne nañ fi seet si ma te yàlla def na fi ma maa ngi ba léegi kon maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax waaw. ana ñi nga doon liggéeyandool. ñoo liggéey nag ku dégg bëccëg moom ñu ngi def li ñu man ñoom ku ñu ngi liggéeyanti man lépp ñoom wax dëgg yàlla bu ñu ba tey dem naa bu yàgg moom ñoom bu doon yëkkati ba tey yëkkati ko naa bu yàgg waaye na yàllaa ko tuddagul quoi wax dëgg yàlla waaw ah, li ma ci dolli rek mooy di gërëm encore une fois ki nga ne mooy naar naar naar bu nu ñëwee fii ginnaaw yàlla ñoom bi naar la daf may woo tout le temps guddi ak bëccëg frère dama am sama frère bu tëdd moom rek bu yoroon lu mu ko fajee moo koy yëkkati mais lott na ci moo tax mu woonu Dakar ba Social nag ah, yéen la ci yaakaar yéen ñi nga xam ne yéen a may seetaan su diaspora bi nga xam ne saa bu ma tàbbalee vidéo ngeen def ci lu ngeen man ak lu ngeen manul yéen ñëpp yéen ñëpp parce que su ma limee rek damay juum mais yéen ñëpp gis naa ni ngeen ci sonne fii ci biir réew mi tam aussi kon maa ngi leen ciy xaar Serigne Bamba la tudd Xaadim teraay bi yàgg 2016 te lu wane war na ko ci àdduna soxnaa nga ci kanamam kër ngi ci kanamam samp njabootam ci kanamam loolu lépp nag balaa ko mën faw wér kon ma yaakaar leen ci gennaaw gannaaw yàlla yonent bi ba den ki den yeesalaat ni tey ñu ngi waat fii ci lëndamaan lëndamaan na xam naa dana jaaxal ñu bari mais da nga ñëw ba eh, Kébémer nga jàdd sa góos boo ñëwee ba peex rek nga jàdd daw tuuti ci àll bi kon léegi nan nga gisee émission bi di Dakar Buzz Social jóge ba Dakar seet si la tey ngir rien que pour jàppale la. waaw leen sant bu baax leen gërëm quoi di leen sant bu baax amoo seen fay wax dëgg yàlla di gërëm naar mee bu baax a baax. def na lu rafet maa ngi koy gërëm di ko di sant bu baax a baax yàlla na ko yàlla fay quoi ndax sonn na ba tey sonn na ci trop chaque jour ma woo ma di ma di ma dimbali bëgg ma dem sama yite rek ni mu def rakam la ma def waaw bu baax ko sant bu baax a baax waaw di ñëpp di sant ñëpp yàlla kontaan naa ci yéen trop wax daal xaadim su ma ko doon gën a bëgg lan lay doon. wax dëgg yàlla jógaat dem samay soxla rek waaw dem liggéey waaye sama yite moom gën travail bi sama travail moom wax dëgg yàlla mooy loolu mhm. te wax dëgg gone laa quoi mos yoon dem liggéey ne samay morom wax dëgg te tëdd moom xam nga yàlla na xam nga ne mm-hmm. wax di sa wéjur bu jigéen nu ngi koy dundee. sonn na trop moo may defal lépp moom may sang yeeg yëpp yu bëree bare moom ma koy defal foo xam mooy malade moom dafa metti mm-hmm. waaw son na ci trop wax dëgg yàlla samay mag ñëpp a ci sonn samay mbokk ñëpp def na li ñu mën lépp waaye xam nga ba léegi yàlla tudd ko mm-hmm. maa ngi ñëpp rek képp ku ma defal yàlla rek maa la ci woo bu baax a baax waaw. kuy defal yàlla rek mi ngi la ci woo xaadim la fii ci lëndamaan woo na leen ci men woo naa leen ci waaye encore une fois di leen gërëmaat ci ni ngeen di toppee émission bi di ci def seen alal ndax alal dafa sax ci xol boo ko liggéeyee di dimbali koo xam ne xamoo ko kooku nit ku baax a ko man te gis naa ne saa bu ma tàbbalee vidéo ngeen jëkkante ko def ci lu ma ne foo ne ngeen may woowee ne ma kii nu ñuy def ak moom may leen jàppale leen ko am ñoo xam ne sax dañuy tàbbal te duñ wax seen loolu lépp yëg nañu ko yëg aussi itam ñaan ñi ngeen ñu ñaanal gis nañu lépp luñ ci am yàlla nañu ko bokk. ñun yéen lañ fi nekkal mooy lépp li jafe-jafe rek dinañ génne waxtaan ceeg yéen exposé ko pour jaamu yàlla mën cee def lu baax di ci gërëm tak encore une fois ki ne mooy Binta Cissé nekk ba France maa ngi ko ci gërëm gis naa muy daj ci vidéo di ci gërëm Daba Thiam aussi di ci gërëm madame Balde euh, Mariama ak Mam Kumba ñoom ñëpp ma leen ci gërëm di gërëm de ki xam ne mooy jabu nekk ba Amérique jabu maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm ndax émission bi mu yegg rek yéen yéen a ko yóbbu ñun li man mooy wax dox ak wax mais yéen yéen a ci def seen xaalis xaar naa leen ci nag ko mën a jàppale rek jël ko charge faj ko mu mën a dox ay soxla seen émission Dakar Buzz social la euh, yàlla na ñëpp am jàmm euh, Bamba lan ngay tàggatoo. waaw maa ngi leen bu baax gërëm bu baax a baax yàlla ma yëkkati ci jàmm salaam rek sant leen bu baax gërëm naa armée bu baax waat maa ngi koy bu baax wax dëgg yàlla sant sama gaa yi yëpp jàpp wax dëgg yàlla seen yéen ñaam bu ñu soxla ma dem bu yàgg ma jóg dem bu yàgg xam ne noonu la ko yàlla tuddee bëri bi xam na maa ngi sant jërëjëf. jël nga am permis. non xam naa après mi fi waaw. Mm-hmm. kon tey bu yàlla defoon nga wér da ngay daal rek jël sa oto dem dawali. waaw incha allah rabbi kay waaw ma yoroon fi mu doon mooy yàlla defoon ma wér ma jëlaat dawaat samay liggéey tey daal waaw. yàlla yàlla yëkkati la. amiin amiin waaw jërëjëf